Birkama Berewuleñ askan gi fay yeewoo tam am na ay jéego yu am solo yi nga xam ne ñu ngi ko taxaw seen askan rawatina ñi yëngu ci wàllu njënd njaay buñ ne jënd ak njaay ci wàll ci jamono juñ nekk nii nag ñi ci gën a wala ñi nga xam ne ñoom lañ ci dee gën a gis mooy ñan muy borom boutique yi ñu gën leen a xamee ci kàllaamay nasaraan corner shops yi ñooñu am na cër bu bari bi nga xam ne dinañ ko dee jëmee ci askan gi ci lu jëm ci wàllu njënd ak njaay mi ñii nag di askanu Berewuleñ ñoo gis ne tam dina am solo lool pour ñu dooleel leen muy corner shop yii nii jëndal leen wala jox leen ay jumtuwaay yi ñuy uh, jëfandikoo yi nga xam ne dina leen mën a aar ci lii di doomu jàngoro ji di Covid 19 bii nii pour gis ne tam mbas mi wàññi nañ ko ci biir réew mi fii ndax ñoom gestu li mu wane mooy. dañ gis ne ci ñam yi ñuy jëfandikoo rawatina li ñuy gën a soxla ci suñuy day to day activities yi ci koona koona shops yi la kon nag kiy jëflante ak askan gi ci wàllu jënd ak njaay dina baax lool pour mu sàmmoo wàccuwante ak la nga xam ne moom mooy matuwaay yu mbootaayu xeeti àddina bi saytu wàllu wér-gu-yaram pour nuñ mën a aree suñ bopp ci lii di doomu jàngoro ji di covid na Amadou Ba tey dinañ continuer wala laata loolu li nga xam ne la ñuy wane daal mooy standard newspaper ñaar yooyu bokk nag ci ay ponk yi nga xam ne yooyu lañ gën a euh, tànn tey jii nii. Mm-hmm. non uh, of course uh, non li ma doom bëgg a wax rek mooy ci ci yi nga wax loolu jàngat bi uh, am na solo of course si surtout ci ci Brikama comme comme noo ko waxee foog naa ne Brikama bokk na ci dëkk yi nga xamante ne mbas mi si la gën a dugga ci biir réew mi suñ gisee nag ñu jël ay mesures pour fexe naka la ñu enree ñi nga xamante ñoom ñooy diil ak askan gi loolu dafa am solo bu baax a baax moon ñam foog naa ne loolu dañ koo dañ koo rafetlu ñi nga xamante ne foog ñu xam nga sob si mooy ñi nga xam ñooy jaay wàllu ay lekk ak yu mel mm. noonu nit ñi ñëw exactly ñi ñoo fay dem jënda so yooyu dafay am solo pour ñu aar leen ñu propag ba pare itam dafa xaw a métti dem bu ñu boolee si bi parce que dangaa gis ne amul dara looy mën a jënd si si koñ yi yow loo xam ne jënd la ko dafa xaw a métti kon comme ni ñu ko eh, ñaanee eh, am na solo bu baax biti yi nga xam ne ñu ngi si koñ bi tam ñu dimbale leen utal leen ay bagage xaar leen tam dañuy mën da ubbi ñoo gën a jege askan bi marché bu ko marché moom ñëpp jege ñuñ ko mm, exactly